ci duggee rek incha allah leeral gën ñoo leeral yëf yi. Mm-hmm. bu ko defee ñu mën a xuus. Mm-hmm. waaw danga na sàcc oblige mën na la ku tukki tax a ñaaw fu nga dëkk rafetoo fa. dëgg la tukki tax a ñaaw fu nga dëkk mm-hmm. rafetoo fa waaw. te ndaw ñi léegi dañoo bëri bëgg-bëgg. te nangu ñoo liggéey. dëgg la waaw am nañu sax ñu nangoo liggéey pare bëri bëgg-bëgg. Ah, waaw waaw bëree bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg te sa poos demeewul noonu. waaw da ngay dëgg la ndax àndandoo say maas diiroo kooya ma ni wagg. dëgg la waa ji dafa jugee ci banque bi. bi mu génnee ndekete tegal nañ ko ndëgg sërëx sa dafa xew léegi mhm. tegal nañ pont ci kanam teg mhm. pont ci ginnaaw mhm. oto bi ba annière teewul dana laal pont bu demee ci avance laal pont oto moom fu mu jaar dana annière mbaa pont pont a bënn pneu bi bu ko bënnee nag mu avancé dem am na moto yu ko topp ñu dem ba oh. pneu mu xam ne kërëve na bu génnee rek macha allah ñu songoondoo ko jël àllam te deux millions yu manqué tuuti la manqué cent trois millions yu manqué tuuti deux millions neuf cent mille oh. gis na kon loolu moom mooy actualité kon li ci bëgg a jàngale ah. mooy ku mm. sa pën a bënn booy taxawati non képp ku jógee dugg ci banque uh-huh. bu dee da fay jël xaalis bu bëri bul uh-huh. taxaw ci gisee bi ci comptoir mel ni kuy jënd nekk ci boutique waaw boo jël xaalis bëri banque dafa bëri am na fas place boo xam ne da dugg ci biir mel ni ku toog bureau ci bureau kenn du xam ndax dangay ngay jël ñu jox la sa xaalis nga daal di euh, dugal sa saak daal di dem si yoon kuy jël ay lu tuuti ma mën ngaa taxaw ca comptoir ba waaye tamit borom banque yi ñu nekk ci banque yi mhm. vigile yeeg ñi banque yi xool sécurité banque bi mhm. ndax bëri na ñuy yoole ay nit ñu ngi ci banque bi mhm. waaye bëri nañu ñu ñëw jël ticket taxaw di xool ñi ngi ci banque bi kon foofu la ñuy jëlee xaalis dañu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ak gars yi tamit nañuy gaare ci kanamu banque bi bu fa nekkee mu leen koy xoolal waaye ku génn tamit da nga vérifier sa oto waaye tamit booy dawal sa oto ba am ko la laal ci ginnaaw ab ab scooter na nga def ndànk ndax bëri na ñuy sàcc ci banque nga jóge bëri na ñuy sàcc loolu ndax dañu lay laal ci ginnaaw mel ni soog moo am te fekk na soog amul ñoo bëgg a jël li ci oto bi kon loolu lépp macha allah mi ci banque yi waaye loolu lépp mi ngi ci réew mi mi ngi ci waajalu tabaski bi mi ci bëgg-bëgg te ndaw ñi léegi dañoo bëri bëgg-bëgg mhm. ndaw ñi léegi gis koo xam ne tabaski baa ngi waaj ñëw yorul dara mhm. yorul dara liggéeyul fenn wala àllam demeewul noonu mu ne non man marocain laay laal yu douze mille francs waaw marocain laay laal man kat jeesneer laa bëgg a jënd ñaari baat jeesneer waru la ndax yow yoroo njëgu jeesneer waaw normalement mënuñ la kaa may sax mën ko mën a jaayaar sax dem yóbbu ko ci kër ga ndax mhm. célibataire nga say maga la yore ñu ngi lijjanti xar courant bi sax fayaguñ ko yow ngay sol loo xam ne ni macha allah xañ na ci kër ga mais léegi ndaw ñu mel noonu lañ mel téléphone non ñetti bët laa yore wala ñeenti bët yàlla dafa defal nit ñetti bët ñetti bët bu amoon ci nit nit ñaaw di dafay ñaaw téléphone waaw ñetti bët ñetti bët laay laal ñetti bët yi téléphone ñetti bët a laay laal ñeenti bët laay laal te nga yor yor say ñaari bët sa man koy daal sa nante bi yéen tay day wëndatu waaw xamul moom nag problème bi mooy yéen di non moom nanditeem yëpp ci làkk français la mais du actualité bi dox ci réew mi ah <laughs> yooyu yëpp mi ngi am lu ubbee français bi yooyu yëpp mi ngi am ci réew mi <laughs> dëgg la te ay coono dong la mm-hmm. parce que bu nekk la nga fa nga tollool mm-hmm. booy dund ngay dund fa nga tollool Seyda mais bu dee da nga bëgg a weesu fa nga tollool rek coono gi day am te ubaa macha allah yaa ko tag tag sa bopp macha allah mm. chef Faye mm. ñu gën koo xam ci chef Mamadou Faye gendarme mm. macha allah réew mi xam ko mu nekk ko baax Ousmane mm-hmm. nekk ku ku bëgg diine ndeysaan ñu dajee ci tali tali bi mu teral ma war ma ca feelam ci man ma bég ci lool man xam nga borom tëni nag yàlla dafa dogal ni mhm. man dama leen a mës a bëgg samay xarit lañu samay xarit lañu daal borom tëni danga ci teggi nag sax yooyu boo leen a bëgg danga ci teggi nag Mamadou Faye maa ngi lay nuyu di nuyu gendarme yëpp macha allah di ko teg sa loxo waaye di nuyu douane yëpp aussi di teg sa loxo di nuyu police yëpp di ko teg sa loxo képp ku sol tenue rek jëlal émission bi sax la ma xalal baax Mamadou Faye moo gis ah? baax dëgg la Mamadou Faye bu feera uuruur noonu la mel mooy maire uuruur soo dégg la uuruur dëkk la dégg naa Pape Malick Mbaye di ko way dégg naa Pape Malick Mbaye di ko way waajur waajur tam dëkk la waajur dëkk la boo demee Gossas Mamadou Faye maire bi yàlla na yàlla guddal fan mu ngi noonu gis nga Yassida euh, sénégalais mooy ñaan yàlla teg ko ci benn poste boo mënti gis ci àdduna na am na ku ko bëgg am ku ko xeeb am ku ni siiw jot ci tey euh, poste bi Pa Ousmane am na koo xamante ni tey saa yoo xëy mu ngi ci ay këyit yaa seeda di ko lijjanti wala bu yaa seeda wala bu Mouhamed Mbaye am na amaana ci ñun koo xam ne ma ngay xool beneen poste bu wuuteeg bii mais lan moo tax sénégalais li muy xëcc bu ci jotee fowee ko mhm. parce que tey banque bi ngay dem visile ya nga fay fekk visile yi yaru léegi dañoo néew visile yi yaru ci banque yi jamono yi dañoo néew parce que tey ji euh, banque bi faw mu am visite bu ne ci biir a biir mhm. boo xam ne mooy organiser gars yi mhm. am na visite bu ne ci bunt bi mhm. mais war naa am visite boo xam ne oto yi oto yi fi ñuy gaare moom war na ci bàyyi xel di ci teg bëtam war naa am caméra surveillance boo xamante ne tey jii fi mu nekk caméra boobu mooy xool tey oto yi xam nga tey police euh, visite bi nga xamante ni tey bande bi ñëw na jël jël jël euh, lu mel ni pont roof parce que ci bant lañ koy def gis nga buñ daajee bant bi dañuy dëngal pont yi def ko ci kanam def ko ci ginnaaw xam nga li ma la defee pont lay doon boo xamante ni comme genre pont miir pont bu ñaw oto bi du arrière ba mu lemu léegi nag buñ koy natt dañ koy natt pono xam nga pono dafa am ay ay turu da koy natt fii rëg-rëg bu day am bu génn am bu dugg fu dugg fi la koy natt nga avancé mu bënn nga arrière mu bënn léegi au fur et à mesure ngay daw day peer nank par nank di peer nank par nank mais li Pa Ousmane wax sànq yow mi nga xamante ni yaa dem banque faw nga ñaaw njort parce que ñaaw njort gi mooy mënoo mm-hmm. jël benn sombu tol nenn ni ba pare mm-hmm. sànni ko ca ginnaaw oto wala dara xam nga gis nga nag euh, moom mi ñu sàcc maa la ko wax jamono ngi dox léegi ñoo ñuy jàpp leen mm-hmm. sàcc saa yu nekkee mbooloo yaa seedaa day feeñ ah. parce que par force am ko ci dellu ginnaaw tuub wala par force ci ñoom ñi ànd am na koo xam ne yàllaa ko natt dara mënta faraan ci biir bi day toog nettali ko benn xaritam xaritam bi am kum ko nettali ñooñu am ci biir ñooñu ku dem police déclaré ji ko mhm. plus tard day feeñ mais na muy feeñee day fekk mu wees parce duñ fay parce que dëkk bii boo fi triandé wala nga sàcc buñ la yóbboo dañ lay tëj buñ la mhm. tëjee benn pen lañ lay tëj ñaari weer ñetti weer nga génn commencé a doxi sa ay soxla mhm. Mhm. mais ginnaaw bu boobu jàllee ba pare bi Pa Ousmane wax yaa faw ñu def ci yaatal parce que bi jàngat la ci képp ku dem banque jëlee xaalis na ñaaw njort bi ci gën a yéeme sax mooy dee leen moytu di jël tax mhm. parce que am na taximaan yoo xamante ne tamit dañuy profité am communication ak yenn bandi yi. Mhm. mel ni xamuñu lu xew fekk xamante nañu parce que gis naa ci ñoo xam ne ay téléphone la demee. leen triandé noonu lañ leen dóore. mais faw ñu dellu si waat parce que ajuma bi di ñëw day fekk tabaski jege wala mu jàll. faw ñu waxtaanee kër yi. waaw yaa Seyda mhm. faw ñu waxtaane jigéen ñi njublan nga tam fi voilà faw ñu waxtaane itamit xale yi nga xamante ne ñu ngi ci kër yi yaa Seyda mënoo xëy bañ a gont ba pare waa kër gi am problème mu xar nga sol jees ne romb waa kër gi. Uh-huh. facture courant yi di ñëw. Uh-huh. mais bu ñu bàyyee yaa seeda bu lu ñu gën a développé léegi rek. dinañ ci am. macha allah mu mel ne tabaski la ñu wax gis nañ ci lu nekk ak fu nekk mm-hmm. rek ak façon ba nga xam ni. Mm-hmm. moom ngay dóoree ba ci xale yu jigéen yi nga xam saan ay xale la ñuy nekk amaguñ sax at yu bari Ousmane. Mm-hmm. mais da ngay gis ñoom dañuy teg seeni i pour mën a am dara ci ci ci nañu jéggal ci ci ci góor ñi. kon yaakaar naa yooyu yëpp lu ñu mën a waxtaane la euh, MD tafsir mën ngeen ñëw fëggal la li nga xam ne mooy euh, jokk buum gi ñu jokkoo ak ak ak gars yi ci biti su ko mhm. defee bu yembee rek ñu daal di leen di jël waxtaane ak ñoom duñu fàtte rek suñu papa ji nga xam moom macha allah bu amee yoon rek day dugg fekk suñu fii <laughs> daal di ñu wéttali papa Youssoufa sekk man mi rek sama jabar mag ñu koy wax faatu Fatou Mbengue miis macha allah ci boutique am lañ ko fekk daal di jël pochetam nga xam ni papier am yépp yi bitim réewam euh, passeport am ak kayitam yëpp daal yëpp yëpp yëpp ma ci biir pochette boobu noonu sànq rek lañ moo dama ko xam ne ma ci biir atelier am lañ ko fekk ci biir boutique am daal di koy daal di koy daal di koy jël mu nekk loo xam ne lu doy waar la dafa mel ni période tabaski bi dafa am ñoo xam moom dañuy xaw a rakkaaju loolu allo allo allo salaamaaleykum ñu ngi lay siyaar ba Mor Diop la Mansour Mor Diop ah, waaw Gambia Gambia waaw ziar nañ la bu baax. sëñ Mor ana waa bu baax a baax a baax. ñu ngi leen di nuyu bàyyi la ak soppe yi nga nuyoo ak ñoom. Mouhamed Ousmane ñu émission yi bu baax baax a baax. jërëjëf Diop léegi moom doomu aadama yi ñi nga xam ne nangu ñuy liggéey te bëgg a moo bëri bopp wax dëgg yàlla. te mm-hmm. gars yi luñ gën a tawalee. ndax mooy gars yi xaw ma lan lañ yor mais dañ lay wax ne la may ma paas comme ñun suñu nekkin biir Kaama dañ naan la may ma paas su Serekunda soo reetee ba jox leen benn xaalis boo xam ne sa poche sa jógee wala si sa comptoir. waaw doo doo ko defati. dañuy ah. taxaw laaj la li nga yor yëpp da ko jël. wallaay laa ji gars yi ndaw ñoo koy def. Uh-huh. loolu léegi dafa xew de léegi nit ñi liggéey lañ fas kenn wut. billaay mm-hmm. wallaay. dëgg la. mais tabaski moom tabaski moom li ñu ci mooy nit moom ah, defal loo mën defal loo uh-huh. mën rek nit moom wax di yàlla. Uh-huh. boolee koo xam ne wax dëgg yàlla di ñu laaj sax ah, yére ba ñuy laaj xaalis wax dëgg yàlla ndax ñun. dañoo judd fekk waajur am ay ay soxna yi ñeenti soxna mais ñun ñëpp euh, paa bi daraan jënd xar jigéen ñi ko am nga jëndal sa bopp ko amul tamit mosu ñoo fekk suñu yaay fu muy laajee suñu papa xar moo tax. ndeysaan. Mhm. yaruñ ñu ci yaruñ ci tamit ki ñu yore yaruñ ko ci. moo tax ñun moom wax dëgg yàlla ki amul lenn lu mu lu ñuy xalaat moom. li ñu am la def li ñu amul tamit ñu ko def wax dëgg yàlla. dëgg la ñu ngi leen di seet. Oh, ndeysaan suñu soppee la sëñ Mor moom it gis ngeen da ciy jéem a dugg maa ngi nuyu Babacar saw ca Tambacounda ndeysaan événement Tambacounda bi mu amee fii la teg ci télé bi du yuux naan bugaan ñëw jël si ma <laughs> Babacar Sow waaw la sama xarit la nag xam ne daw rek la mën allo sama xarit la nag <laughs> mu mel ni gis nga mm. yëf yi ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu demee Ousmane mm-hmm. mu mel ni mu mel ni yëf yi dana dana côté bu nekk rek mën na mën nañ faalaale. waaw surtout ñu insister ci kër yi cin luy baax la cin luy baax la bu sedd. ayca cin luy baax la fépp ay baax fi fi ñu toll nii. waaw Tambacounda nuyu naa la bu baax. Cheikh euh, Sall. sama doomu nu jaay marché Ocass mu ngi lay nuyu bu baax moom li tax ma ma ma jubóowuñu moo di ay njëru jigéen rek jaay lay jaay te si jigéen rek. du jaay ko ah oui man nag di ngeen ah. ndax loolu ah. nu mu tudd. aljana aljana waaw. Ah. Cheikh Cheikh Sall bool kon. te marché Ocass nga. Uh-huh. bëgg-bëgg yi uh-huh. bëgg-bëgg yi. ci uh-huh. yi gis nga tey boo duggee ci marché Ocass bi tey. wala nga dugg tey marché HLM tey. wala nga dugg tey marché Sandaga tey marché boo dugg rek. ku ñu fa jàpp muy jël rek. jigéen jigéen la. koo jàpp muy jël. sama njaboot ga sama nangam nga gis ku jël benn dam bi piis jees neen naan sama sama njaboot ga mais boo sàccee vaccin sama njaboot ga sax d'accord wa nga sàcc sax ab tisi bu 1000 francs naan sama njaboot bu ñu la jàpp parce que daal lay reetaan. waaw mais looy dox di saboot mën a par étape sax wax mais sama yóbbuñ ko fa. ana dem liggéeyi bu weer deewee waaw sàcc benn gërëfaas xaw ma ay seen lëng. cheveux naturel cheveux naturel. waaw naan sama njaboot ga xale bi fu muy takkee cheveux naturel. Mm-hmm. xale bu am 7 ans wala 8 ans. kon kay business moom. am na ñoo xam sax du njaboot bëgg ay daananteeg bëgg am naa léeg bëgg am naa la moo tax ñuy sàcc te nit dafay dool lu nit di gënee nit buy sangu du ko summi dëgg la nit mën naa sol jëneer bu baax suur tabaski sa doom génn sol per perkaal bu rafet te set nga xam ne maa ñëpp ñëpp naw ko uh-huh. ndax lan jees na boobu nga sàcc tey uh. ba solo ko sa ñebal mu soo ko suur tabaski bi caméra surveillance yi jàppaat la ñu koy partagé waat ci biir ba ilaa yow midi heure tabaski nga dem bay lekk ñu naan la xoolal diw nit kii nii. non man a dama jëlee ko koy sàcc mais say doom bu ñu màggee da nga xam lan lan la ñuy doon ci réew mi. mais xoolal ma loolu lépp rek sa yaay dama fi sàccoon ba ñu jàpp ko nii. moo ko fi sàccoon kon dafa ah. jar a bàyyi xel. kon lu ko fi jaar lu ko fi lu ko fi jaar nañ teey waaye tamit kenn gën ta yambare. Uh-huh. kenn gën ta waaye di kenn uh-huh. gën ta xaaye di uh-huh. di dem jëndi ji xar